sayyidina wa mawlaana muhammadin al-amiin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin laqin lisaani wahlulan minhu al-uqad waj'alhu shaakiran wa zaakiran abad waj'al kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu nuyub lislaam bu màgg bu tedd boobu te di leen ziyaara di leen ñaanal tawfeex ak wér ak di leen balu àq bu baax te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole mi jéggal mu mel nii doon nañ ànd ak yéen ci ay bis ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde woon nahju qadaa'il xaaj ba yàlla dogaloon njàngale ma mat mu mel dañoo taxawoon ab diir waaye ñu ñëwit bëgg a continuer liggéey boobu rek soobuwaat ci beneen téere ci téerey sëriñ bi radiyallahu anhu nga xam ne téereem yëpp njariñ la feese dell ci liggéey boobu ci lañ bëgg a wéy ak yéen rek àndaat ak ci téereem bi nga xam ne moom la tudde munawwiru sudur munawwiru sudur nag mbokk yi mën nañu wax ne ab téere la boo xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi ko nazmu mi ngi ko yaxal waaye day mel ni yaxal gim ko yaxal dafa jeng jëm ci fànnu tasawuf mooy nit ki ni nga xam ne noonu la war a rafetale digganteem ak boroomam waaye nit ki ni mu war a sàmme xéewal yi nga xam ne moom la ko suñu boroom subhaanahu wata taala jox waaye ni nga xam ne noonu la nit ki war a bàyyee boroom bi subhaanahu wa taala mu mel ni kon téere bi mën nañoo ak njëlbeen la ci képp koo xam ne danga bëgg sóobu li nga xam ne mooy yoonu tasawuf ndax sëriñ bi leeral na ci biir téere bi ay bunt yoo xam ne incha allah dinañ ci ñëw ci ak teqale mu mel ni suñu bindu tey dañ koy jagleel li nga xam ne mooy laltaayal téere bi ñu xam ne téere bi téere la boo xam ne sëriñ bi mi ko tàmbalee ni nga xam ne noonu la baaxoo tàmbalee am bindam muy tàmbalee ko ci bismillahi arrahmani arrahim waaye it roye ko bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne daf daan digle ci ay xadis yu bare bare bari ñuy fonk mbir mu ñuy tàmbali ñu tàmbalee ko ak bismillahi arrahmani kon sëriñ bi noonu la tàmbalee téere bi te loolu bu ñu demee ci xadis dañuy tetale am solo goo xam ne moom la tàmbalee mbir yu ñuy jublu waaye dañu war caa sóobu tàmbalee ko bismillahi rahmaani rahim am solo goo xam ne am na am na ko solo ndax bu ñu gisee yonente bi saa sallam mi ngi digle ci teggi ni nga xam ne mooy teggi ni lekk mooy wax ne yow xale bi saa boo demee ba xam ne yaa ngi jublu ci xéewlu nanga tudd turu yàlla waaye it na nga lekke sa loxo ndijoor te lekke ci sa kanam kon foofu teggi ni yonente bi sallallahu alayhi jëkk a digal ki nga xam ne mooy lekk mooy mu tudd turu yàlla ndax dañuy wax ne nit ki su fekkee ne mi ngi lekk te tuddul turu turu yàlla euh, saytaane day bokk ak xam ne moom lay lekk kon loolu lu ama am solo la muy tàmbalee mbir yi bismillahi rahmaani rahim ñooy gis ci alquranul karim suñu borom subhanahu wa taala di ñu digal ne bu ngeen di lekk bu leen lekk lenn loo xam ne bañ koy rendi tudd ñu ca turu yàlla maanaam nit ki bu doon rendi tey te moo ko tey tuddul turu yàlla ca rendi maanaam waxul bismillah bu boobaa loolee dana gàllankoor la nga xam ne moom la rendi ba deesu ko mën a jëfandikoo bu ca ak tay amee ndax suñu borom subhanahu wa taala moo ñuy wax ci alquran baada min ashaitan rajim mu ne wala taakulu mimma lam yuzkar isma allahi wa innahu la fisqun inna ash la yuxuuna ila awliyaihim liyujaadilukum wa in ataatumuhum innakum la mushrikun nana alquran euh, mi ngi ñuy aaye foofu suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy ci aaye boobu ñu bañ di lekk lenn loo xam ne dañ koo rendi ba pare te tudduñu te turu yàlla kon loolu li muy tegtale rek mooy am solo goo xam ne tudd turu yàlla wala tàmbalee turu yàlla ci mbir mu mu man doon am solo goo xam ne am na ko solo bi nga xamee ne sëriñ bi radiyallahu anhu tàmbalee na turu yàlla woowu li nga xam ne mooy téere bi la mu ca teg mooy na mu ko baaxoo defe rek dafa daa euh, joyal xalimaam jëmale ko ci julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye muy loo xam ne daf koy jëfe ndigal loo xam ne alquranul karim moom moo ñu ko digal waaye it cofeel boo xam ne am na ko ci yonent bi sallallahu ba nga xam ne du ci mbindam yu bëree bëree bëri mën wax ne du bind mukk ba eggal te julli wi ci yonent bi sallallahu te loolu suñu borom subhanahu wa taala moonu digal ci alquran di wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabiyyi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa taslima kon loolu mooy li nga xam ne mooy euh, ba euh, jëf yi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu baaxoo tàmbali li nga xam ne mooy am bindam nga xam ne julli ci yonente bi sallallahu moom daanaka euh, mën nañoo wax ne doon na ko wax ca mawaahibu an naafi di wax ne salaatu sitta bi madhi sitta taatihi batta maa tisa'i kon at mi su ma ko xaajee juróom benn weer yi dama ciy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yeneen juróom benn weer yi ma ciy tàgg yonente bi sallallahu sallam kon bu ñu ko gisee ci téere bi jël bennu téere bi ñu gis bi mu tuddee turu yàlla ba pare muy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu du def kenn kéemtaan ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu ndax gis nañ ko mu jagleel ay euh, xasida yu baree bari yoo xam ne xasiday salawaat la ko tuddee waaye gis nañ ko mu def ay dawaawiin yoo xam ne yu takkoo takku la te yooyu yëpp li mu ko jagleel rek mooy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu ñu ko gisee ci njëlbeenu téere bii ginnaaw bi mu tuddee yàlla ba pare mu wàcc julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dañuy xam ne du lu yees ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw loolu ci njëlbeenu bayit yi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu uh, binde xasida gi gis nañ ko ci njëlbeen gi muy mel ni xam le boppam waaye ci xamleen woo xam ne wa ama ama am solo la ndax sëriñ bi radiyallahu anhu daf caa jëfandikoo ñaari garaat yi nga xam ne moo ko gënal lépp loo xam ne moo nekk ci kaw suuf waaye lépp loo xam ne moo nekk ci adduna muy abdullahi wa qadimu rasulihi muy jaamub yàlla waaye liggéeykatub yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon noonu la sëriñ bi euh, euh, tàmbalee li nga xam ne mooy abyaati xasida gi nga xam ne abdu moom amul benn martaba wala daraja boo xam ne gën koo kawe waaye it euh, liggéeykatub yonente bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ bi amul lenn loo xam ne moo ko gënal ci ñu wooye ko noonu kon ñaari garaat yooyu nga xam ne yu kawe kawe la yu sëriñ bi fonk la moom la tàmbalee euh, xasida gi nga xam ne ñu ngi koy gis muy wax naa xaala li wajhillahi abdullahi xadimu man awsalahu lillahi kon noonu la sëriñ bi radiallahu anhu tàmbalee xasida gi ginnaaw bi nga xamee ne na loolu nga xam ne mooy garaat boobu nga xam ne moom la amee muy abdullahi wa xadimu rasulihi daf caa teg nag sant suñu borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne euh, lépp loo xam ne moom la am te mu tukkee ci yonente bi saa jaarale ko ci yonente bi alayhi wa sallam ginnaaw bi nga xamee ne sant na suñu borom bi subhanahu wa taala ba pare nag mu teg ci euh, sant ko waaye soril ko lépp loo xam ne moo yellut ci jëmmam ja subhaanahu wa la kon lépp loo xam ne mooy indi ak bokkaale wala lépp loo xam ne mooy andi euh, mooy wutal yàlla ndend sëriñ bi radiyallahu anhu euh, seetal ci suñu borom subhaanahu wa taala ba mu set wicc waaye sant ko cant goo xam ne bu mata mata mata mat la ginnaaw bi nga xamee ne loolu jàll na nag sëriñ bi tijjee téere bi bind ca lu ñuy tudd ak lu ñuy tudde muqaddamatun muy loo xam ne moom la jiitale téere bi li nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu jiitale téere bi nag mooy ay ndénkaane yoo xam ne daf ko jëmale ci aji xëy di sàkku ji xam-xam ki nga xam ne dafa xëy ngir sàkku ji xam-xam sëriñ bi radiyallahu anhu moom la jëkk a euh, jox ay ndénkaan ci li nga xam ne mooy euh, téere bi nga xam ne moom lañu fas yéene ànd ak yéen ginnaaw bi nga xamee ne dénk na aji sàkku ji xam-xam ndénkaane yi mu ko war a dénk ci téere bi ba pare sëriñ bi radiyallahu anhu won nañu ne diine yonente bi sallallahu alayhi mooy diine ji nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala tànn te du gënam du gërëm jeneen diine ju du diine yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax suñu borom subhanahu wa taala mi wax ci alquran ne ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين suñu borom subhanahu wa taala moo ko wax ne na képp koo xam ne jàpp nga jeneen diine muy diine judul yonente bi yonente bi sallallahu alayhi na na nga xam ne diine ja nga jàpp kenn du la ko nungul te bu ëllëgee way perte ñi ngay bokk moo tax sëriñ bi di wax ci mbindam ba tey ne diinun siwa islaamuhu la yuhmadu inda al ilahi wa kon loolu day tegtale ne su sëriñ bi ñëwaatee fii du ñu leeral ci li nga xam ne mooy diine yonente bi sallallahu alayhi jooju ak tànn gi nga xam ne moom la ñu ko suñu borom subhanahu wa taala tànnal dañuy wax ne loolu it du lu yees waaye daf koy gën a fedd liwaat ci li nga xam ne mooy téere bi ñu bëgg ànd ak yéen ginnaaw bi nga xamee ne jugee na foofu nag sëriñ bi radiyallahu anhu daal di ñuy wax téere bi moom naka la tudd kon am na bayit woo xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu wax nañu fa téere bi nu mu tudd mu wax ñenu sumaatuhu munawwiru suduri ladal manazili wa inda duuri noonu la sëriñ bi radiyallahu anhu tuddee li nga xam ne mooy euh, xasida gi ginnaaw bi nga xamee ne sëriñ bi radiyallahu anhu wax nañu ni xasida gi tudd ba pare nag mu daal di ñuy melal àdduna ak suufe gi nga xam ne moom la suufe waaye euh, ñàkk solo gi nga xam ne euh, àdduna ñàkk na ko solo te ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax loolu sëriñ bi radiyallahu anhu leeral nañu ko ci biir téere bi ci am aw melal wu yaatoo yaatoo yaatu woo xam ne saabu bu ci ñëwee incha allah euh, dina leer kon loolu sëriñ bi tënke na ko ci li nga xam ne mooy li mu jiital muy muxaddama bi ginnaaw bi nga xamee ne jóge na ci muxaddama bi sëriñ bi radiyallahu anhu mu andil ñu li nga xam ne mooy al baabul bindal ñu albaabul awal muy bunt bi nga xam ne moo jëkk ci téere bi nga xam ne la fa sëriñ bi tënk mi ngi ko tënk ci ñaari xaaji diine ñaari xaaji diine albaabul awwal fi xismayi diini moom la sëriñ bi radiyallahu anhu tënkee li nga xam ne mooy bunt boobu euh, mooy lu ama ama am solo ci buntu boobu sëriñ bi radiyallahu anhu toftal ci ay ay ay ay ay ay dog mën nañ ko tudde ay dog Euh, jëm ci li nga xam ne mooy dog boo xam ne dafa jëm ci tuub dog boo xam ne dafa jëm ci tuub am beneen dog boo xam ne dafa jëm ci maraatibu tawba muy dara jaat yi nga xam ne mooy at tawba am na ko muy degré yi nga xam ne tuub am na ko waaye mu andilaan ñu beneen dog boo xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu da koo de faslun fil kabairi nga xam ne dog boobu li ci sëriñ bi radiyallahu anhu di jàngale mooy bàkkaar yu màgg a màgg yi nga xam ne nit ki war na ko moytandiku bu baax a baax a baax a baax ngir bàkkaar yooyu dafa rëy rëy rëy ba nit ki war naa moytandiku lépp loo xam ne moo koy taxa tàbbi ca bàkkaar yooyee ginnaaw bunt bu njëkk bi sëriñ bi radiyallahu anhu andil ñu buntam ñaareel bi waaye buntum ñaare bi la fi sëriñ bi radiyallahu anhu di jàngale mooy euh, laabal li nga xam ne mooy xol ak lépp loo xam ne moo aju ci cëri doomu aadama bi mu tudde ko faslun fi tathiril qalbi aw aw albaabu saani fi tathiril qalbi wa jumlatil jawaarih buntub ñaareel bi mooy buntu bi nga xam ne mooy jàngale ni ñuy laabale ab xol waaye lépp loo xam ne it moo aju ci wàllu doomu aadama bi naka la ko euh, doomu aadama bi war a sàmmee waaye limu ci war a jëf ngir mu doon njariñ waaye limu ci war a moytandiku te muy loo xam ne ak moy la ci buntu boobu sëriñ bi radiyallahu anhu ñu ci lu tolloog juróom-ñeenti dog dog bu njëkk bi mi ngi ko tuddee faslun fil qalbi mooy dog boo xam ne ci li aju ci wàllu ab xol lay wax ak doomu aadama bi ni nga xam ne noonu la ko war a sàmme dogum ñaareel bi mu tuddal ñu ci faslun fil yadayni mooy dog bi nga xam ne moo ñuy wax nit ki naka war a sàmme ñaari yoxoom dogum ñetteel bi sëriñ bi radiyallahu anhu di ñu ci wax faslun fi rijlayni mooy dog bi nga xam ci lañu sëriñ bi di leerale nit ki naka la war a sàmme li nga xam ne mooy ñaari tànkam ba mu doon xéewal goo xam ne daf koy xéewloo di ko sant suñu borom bi subhanahu wa taala dogu ñeenteel bi sëriñ bi radiyallahu anhu di ñu ci leeral itam naka lañ war a sàmme li nga xam ne mooy suñu biir muy faslun fil batni naka lañu war a sàmme suñu biir ak li nga xam ne moom lañ ci war a dugal mu jariñ ak li nga xam ne moom lañ ci war a moytandiku te mu mën ñoo jural li nga xam ne mooy loraange dogub juróomeel bi sëriñ sëriñ bi radiyallahu anhu di ca wax di ca leeral li nga xam ne mooy li nga xam ne noonu lañ war a moytandikoo làmmeñ ak ni nga xam ne musiba mi nga xam ne moom la war mën a yóbbee doomu aadama bi su fekkee ne moytandikuwu ko ak ni ñu ko ma war a moytandikoo yëpp ak li ñu ci war a jëf ngir mu man ñoo jariñ yooyu yëpp sëriñ bi radiyallahu anhu leeral na ko ci euh, bunt boobu muy dog boobu dogub juróom benneel bi sëriñ bi radiyallahu anhu man kay leeral euh, ni nga xam ne noonu lañ war a moytandikoo pay muy kanam ni nga xam ne noonu lañ ko war a moytandikoo ak euh, yi nga xam ne moo ci aju ci nu ko doomu aadama bi war a jëfandikoo waaye nu ci doomu aadama bi war a moyto moytandikoo mooy suñu borom subhanahu wa taala ba man koo juról euh, loraange am ci dog boo xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu mu ngi ñu ciy leeral naka lañ war a mën topp suñu borom subhanahu wa taala ci li nga xam ne mooy aju ci waa ñaari euh, noppi doomi aadama bi mu jëfandikoo ko ngir euh, li suñu borom subhanahu taala defal ko ko mu nekk xéewal waaye mu ci topp suñu borom bañ cee jëfe lenn loo xam ne daf koy jural ëllëg ay bàkkaar wala daf koy jural merum suñu borom subhanahu wa taala am ci dog boo xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu man cay leeral li nga xam ne moo aji ci ñaari bët maanaam ay bët ni ko doomu aadama bi war a jëfandikoo ba mu nekk loo xam ne lu koy jariñ la waaye mu bañ a nekk li nga xam ne mooy loraange ci moom am ci dog boo xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi ko jagleel li nga xam ne mooy nooni doomu aadama ñeenti nooni doomu aadama yi gën a siiw nga xam ne mooy nooni doomu aadama nga xam ne war na koo bàyyi xel fu mu toll di leen fuglu ba noon yooyu duñ ko mën a jekku ba man koo def dara loolu tamit sëriñ bi leeral nañu ko ci biir téere bi waaye leeral nañu ko ci ak teqale bu baax a baax a baax ak naka lañ war a jëflantee ak noon yooyu loolu lépp sëriñ bi radiyallahu anhu leeral nañu ko ci euh, téere bi kon ñu xam ne loolu lépp nag li muy tegtale mooy day tegtale kon suñu borom subhanahu wa jox nañu xéewal gu bëree bëree bëree bëri goo xam ne bu ñu ko doon lim mënuñu koo mënuñu koo matale ndax cëri doomu aadama boobu donc mbokk yi benn boo ci jël seetantal ko xéewal bu màgg a màgg a màgg la goo xam ne suñu borom subhanahu wa moo ko defal doomu aadama bi tey it des na yeneen yu bëree bëree bari ci ay xéewal yoo xam ne suñu borom moo ko defal doomu aadama bi te mu war ko te sant bu baax a baax a baax a baax sant ga nag mooy lan mbokk yi mooy liy suñu borom bi subhanahu wa taala digle ñu ñu ko ciy def waaye li nga xam ne moom la ñu ciy moytandikuloo di ñu ko ci tere ñu bàyyi ko ndax suñu borom bi subhanahu wa taala wax nañu ne su fekkoon ne da ngeen di lim xiiwal yi leen suñu borom bi subhanahu wa taala defal bu ngeen ko mën a matal wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha su ngeen doon lim xiiwal yi leen suñu borom bi subhanahu wa defal mënu leen koo matale kon sagam mënuñoo matale xéewal yi nag la cay euh, am solo mooy la suñu borom subhanahu wa taala tere ñu bañ cee jege dara dara dara waaye li nga xam ne moom la digle ñu def ci suñu kem kàttan kon cër yooyu mbokk yi sëriñ bi euh, andi na ko ci ak teqale ci biir téere bi waaye bu ci ne nañu ko war a sàmmee ak lañu ñu ca war a moytandiku loolu lépp sëriñ bi ñëw na ci ci biir téere bi incha allahu rabbi dinañ ko euh, leeral ci bind yi nga xam ne mooy ñëw moo tax sëriñ bi di wax ci euh, nu ñu war a sàmmoo sàmmee cër yooyu ci masalikul jinaan de wax ne wakun uxayya daabital xawaasi fi kulli waxtin xaafidal anfaasi yow sama mbokk na nga nekk ku takk sey cër sa cër yooyu nga xam ne moom la la suñu borom jox mu nekk xéewal na ko tàkk bul ci jëf lenn loo xam ne lu aay la waaye bul ci jëf lenn loo xam ne lu araam la na nga ba takk ko waaye sa noy yii sax na nga fexey ba euh, tàkk ko di ko jëfe ci lu neex suñu borom subhanahu wa taala ndax saa boo ko génnee ci lu neexul suñu boroom na nga xam ne yaa nga yàq sa waxtu bu baax a baax a baax a baax kon sëriñ bi leeral nañu loolu bu baax a baax a baax ci euh, biir li nga xam ne mooy téere bi ci bunt bi nga xam ne moo mujj ci téere bi nag muy albaabu salis sëriñ bi leeral nañu fi njariñ yi nga xam ne mooy tukkee ci alxabibul amin muy yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye lor yi nga xam ne mooy bàyyi ci al aduwul euh, allahin muy iblis lor yi nga xam ne moo mën a tukkee ci moom euh, yooyu yëpp sëriñ bi leeroon nañu ko ci buntu bu mujj boobu nga xam ne mooy buntu bi nga xam ne fi la téere bi yem kon Euh, loolu la ñu bëggoon a dikke tey andi ko ngir laltaayale ko téere bi bala ñoo dugg ci biir ñu xam ne kon téere bi noonu la ko sëriñ bi euh, noonu la ko sëriñ bi yaxale waaye yooyu nga xam ne moom lañ ci tudd yépp sëriñ bi radiyallahu anhu andi na ko ci biir téere bi ci ak teqale te ci suñu bind yi nga xam ne moom la ñuy jubal incha allah dinañ ci def ak euh, teqale bu baax a baax a baax a baax kon ñi ngi tuub bu baax tey jégglu di nuy ñëpp di ziar ñëpp di wax ne in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah ala sahabati wa saadati kullihim ridwanu rabbil aradi wassamawati ala sahabati wa saadati kullihim ridwaanu rabbil araadi was samaawaati sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey